asalaamaaleykum ñu ngi dellu di leen siyaar ci leen euh, ba euh, ñaanal jàmm te koy sàkku ci yéen Medina Baye la ñu daal di nekk gàmm gi nga xamante ni ñeel na atum ñaari junni ak ñaar fukk yembook alxamis bi nga xamante ni ñaar fan ak juróom-ñeent xibaaru marax gi nag lañ ko fa yéene daal di tàmbalee rek bokk na ci aw tiis nag loo xamante ni mënta daal di ñàkk ndaxte ndogalu suñu borom saa yu jibee rek am ca leneen loo xamante ni xëy na mu am ab natt bu nga xamante ni moom lay dal loolu nag moom moo sabab accident yu nga xamante ni ñeel nañu doon ñëw nag ci gàmmu gi loolee am na ca bakkan yu rot lim ba toll na ci fukk ak juróom-benn bu ñu sukkandikoo ci bu am lu tolloog juróom-ñaari fukki nit yoo xam ne yab na leen di dem Rosso moom moo nag jàkkaarloo ak benn camion frigorifique si fi nga xam ne mooy national une ba ñu tolloo fi ñuy wax alum kaañ gannaaw ba loolu amee lu toll ci juróom-benn fukki nit ak juróom-ñenent am nañ ay gaañu gaañu te itam lu toll ci fukk ak juróom-benn daldi nañ dee si saasi fanweer ak ñeent am ay gaañu gaañu yu mett yi ñi nga xam ne ñoom ñooy élément sapeur pompier yi daal dinañ leen yóbbu fi nga xam ne mooy hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. waaw ah, mais li métti na quoi. Uh-huh. bilaahi ñaata mort la ñu wax. daa isu ma. seize mort waaw ah, wax nañu ay seize uh-huh. quoi. mais dañoo dañoo dañoo dañoo mbëkkante. Ah, kii bi ah frigo la quoi. Uh-huh. ndax côté Ndar la la côté Ndar la jógee. bis bi bis bi jëm moo gën troisième position jaaxal na bis face à face. xam loolu dafa métti quoi sëbul il faut ñu daw ndànk waaw ndax maanaam lii gàmmu la rek day weesu quoi il faut ñu daw ndànk il faut ñu jàppalante te dimbale doomu aadama yi quoi ndax at na amul solo ko mm-hmm. waaw loolu moo gën rafet quoi. Aline Diop du jëwriñ bi jiite hôpital Amadou Cheikh Ndiéguène mu ngi njëkk a wax ci accident bi amoon fi nga xam ne mooy départemental Mbour Sindia wante indi ay leeral ci accident bii nga xam ne moom moo am ci alum kaañ ci yoonu Thiès Ndakaaru véhicule njagañ bi ñuy wax njaganjaay moo këpp ba mu am lu mat euh, euh, juróom fukk ak juróom ñett ñu gaañu euh, ci juróom fukk ak juróom ñett ñett am nañ ci ay gaañu gaañu metti bus bi bi mu accident boobu am nañ ci juróom benn fukk ak juróom ñeent ñi nga xam ni gaañu nañ ci loru nañ ci ci juróom benn fukk ak juróom ñeent yooyu am na ci fanweer ak ñeent ñoo xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu yu metti ñooñu dafa indi leen fii ci hôpital bi jël leen en charge leen jël en charge euh, am na ci fukk ak juróom yoo xam ni seen gaañu gaañu tax ko demee noonu ñooñu jëlee leen en charge ba ñoom dem nañu euh, fukk ak juróom-benn Euh, malheureusement ñàkk nañ seen bakkan ñoom ñu ngi ci biir morgue hôpital bi fii. gannaaw ba benn waxtu toftalee fanweeri yi lii nga xam ne kat mooy ñi faatu kenn yokk na si ndax ki nga xam ne moo doon dawal bus yi daanaka wuy dina boromam. ma ngoog Gustave Emmanuel Faye ko ñooñee ñu leen di ñaanal suñ borom ah, am leen ak texe goo xamante ni daf leen koy teeroo ca firdawsiya te seen gàmm it suñ borom nangu ko loolu ña nga ñi am ci leneen loo xamante ni ña ngi koy xibaarit ni nag am na beneen accident bu nga xamante ni moom it am na ci yoonu Kaolack bi lu ñàkk ci yeneen jotaayu xibaar ñoom luñ ci daal di jukki ngir daal leen koy jagleel taw Kaolack nag jamono ji nga xamante ni ñi ngi fi fidèles yi di nag ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi fasantikoo fenn fu ca nekk jóge fa jamono ji nag nga xamante ni moo di guddi kër nabi màggal ko sallallahu alayhi wa sallam fii nii ci Medina Baye ñu ànd ci ak soxna Koumba Gisé taxawaay bi nga xam ne Mame Baye Niass dina koy am ci àdduna bu wërngal kenn dootu ko natable ñi nga xam ne ñoo di fidèles yi jógee fu nekk ci àdduna bi ngir ñëw màggal ci juddub yonent bi sallallahu alayhi wa waaw bëgg bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg Cheikh moo ñu ko jaral. maa ngi dëkk Kaaràn. xaaral fii war a am naka la frontière. frontière waaw yow nan nga def ba dugg ci. fii ah man de oto laa dugg. oto nga dugg waaw waaw parce que gëli gëli. lan la sant yàlla lañ war a wax. wax dëgg yàlla sant yàlla lañ war a wax te bàyyi wax dëgg yàlla ñun depuis buñ nekk Niger te depuis suñ maam ba ñun wax dëgg yàlla xam nañ ko te digg nañ luñ def te nañ ko alhamdulilah sant yàlla. marhaba bi marhaba bi. matarishi matarishi. ah dégg yow yow yow ko. dégg da nga ñëw euh, si gàmmu gi. waaw dama ñëw si gàmmu kay. lan moo tax nga jóge Dakar ñëw fii si Kaolack. gi moo ñu indi sàkku si ñaan. Mhm. waa rek comme d'habitude rek. ñëw ji Kaaraan. waaw waaw lan moo tax nga bàyyi sa dëkk ñëw. bàyyi ñu ngi koy wax dëgg yàlla suma maama Saba laa juddu moom ci boppam dëgg na tur baay Niger baay wax dëgg yàlla amul morom kenn la. naam Covid am na waaye ñi xamante ne ñun ñoo ñoom dañoo bu baax a baax ci bi événement waaye. dinañ respecté lii di mesure barrière yi. Euh, tout va bien nous avec le Covid donc euh, c'est bon il y a le le il y a le protège y a beaucoup de choses donc y a le cache y a on lave la main donc. xam naa man kay lu ma bëgg a wax sax soo fekkee gannaaw yeneen sallallahu alayhi wa sallam dana am benn yeneen ci bàyyi la bàyyi amul morom. di gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim baar mu ko gis rek bëggal ko sam bopp far yàlla yàlla def rek mu feeñu. ndeysaan. yàlla def mu feeñu ma nag ma 2006 nag tombé nag ma tarbiw waaw ma ne lépp lépp lépp lépp lépp balaa maa a liggéeyal baay foog ma jox ko sama càkkatif. gàmmu Medina Baye daal dinay dalal ci ay gan yu bëri naan sax mbas mi di Covid 19 freiné na ñenn ci ay fidèles yoo xam ne mënuñu jóge ci yenn ay bërëb. soxna Kumba Gise ca loolee nga xamante ni nag moo di taalibe yi nga xamante ni ñëw nañu fasantikoo bokk na ca lu am solo nga xamante ni ñoom it ku wax taalibe Baay rek wax ko ak kurus kurus nag ak meloom ba nga xamante ni moom lay amee ginnaaw lu jëm ci wàll mi nga xamante ni nag ku leen ràññee rek ràññee leen ci colin bi waaye tamit kurus bokk ci li nga xamante ni taalibe Baay ndax jaamu yàlla geek werd yi nga xam ne moom la ñuy amee ñu teewlu ñenn ci ñoo xamante ni am na ci luñ ñu firndeel. année passée ak année bi non xam nga année passée bon macha allah gàmm bi neex na waaw mais cette année bi xam nga affaire corona bi quoi moo tax. waaw dama ñëwoon pour kurus bi njalabaan laa jënd kurus bi nii ah bon man moom xaw si différence bi bëri mais moom la moom laa gën a sopp daal man ci kurus yi waaw mais différence bi moom mënu ma la ko quoi. bon en fait fi ma jaar yëpp euh, dafa cher de gars yi yombaluñu yi. bon waaw waaw moom affaire yi na torop bon dama foog ne rek est du Covid bi tamit. waaw léegi fi mu toll xam nga yenn saa yi da ngay ñëw nga soxla course bu jar ay cinquante mille wala ay quatre vingt mille nga bëgg ci fay ay course buy jar ay neuf mille wala huit mille quoi loolu rek quoi gars yi yenn saa ñëw nga jàpp course fa te xamoo njëgam quoi. bi métti na nag jox leen ñaan quoi. waa am na moom lay wax ci léegi ah yokku na de waaw yokku na xëy na événement bi xëy na bi ak jamono ji ni mu demee woon bu yàgg ba léegi. kurus laa doon jënd si yokku na trop wax dëgg yàlla ren ci gàmmu gi yokku na parce que lu doon jar euh, trois mille wala deux mille ñu dem di la koy jaayee cinq mille ba six mille cinq cent comme yi mais dafa doy waar. Euh, kon nag xëy na tamit nit ñi jaaykat yi war nañ bàyyi xel ne jamono bi métti na loolu waaye nag dañ dañ koy jënd ngir lan ngir Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bari na ca la nga la nga xamante ni ña ngi koy daal di nemmeeku nag ci li nga xamante ni moom mooy euh, bëccëg wala bokk ca la nga xamante ni moo ñeel wàllu bés yu nga xamante ni daf ni mel loole nag dafay ñeel lenn loo xamante ni ay tegtal la ndaxte ku ni senegal nag wax ci lu jëm ci wàllu teraanga ak ber ndek lu ni mel ndaxte juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam màggal ko law ca def daanaka doyul ndaxte kañ ko ci jaamu yàlla am na ca waaye nag Medina Baye ñu bëri daanaka ci ñi nga xamante ni ñoo di taalibe yi fi dëkk wàcc nañ seen i yu sakkan te doy jagleel ko ñi nga xamante ni ñoo di askan wi nga xamante ni ñoo ñëw nag ngir màggale Cheikh al Islam Baye ba euh, bésam bi nga xamante ni moom la jagleel moom mi nga xamante ni mooy euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanu ceeb soxna ko mba gise mbirum togg gi bokk loo xamante ne nii kenn mënu ko bàyyi ci bépp événement gàmmu gi bokk ci boobu lépp mbir ndax fi ci Medina Baye bépp kër boo daal di dugg rek di nga gis ñu fay togg lépp nag ngir dalal gan yi. sant yàlla rek ba mu bari ndax juddu gi nañ ci bi moom amuñu fayam ñun ñëpp ci la sukkandiku. ñu ne la wax dëgg yàlla préparé lu ñu teralee si ngay gan parce que nit amul li may ganam lii benn bés rek loo ci def rek yàlla fay ak borom bés bi. leen bernde leen bañ bëgg daal macha allah waaw yu neex daal waaw lépp ci bés baay bi la rek. baay moo lay noppal bul ah. xaar ñi lay woo si rëbb allah baay ko yor allahu allah la ñu am buñ koy liggéeyal buñ koy yëg sax barki Mawlana Sey Ibrahim buñ bàyyi ko suñu dëkk ñëw fii dëddu yëkkati xi dëddu yëkkati mar ñun lu ñu dox lu ne si bëgg bàyyi ngeen la ñu ñaan yàlla mu yokk nag waaw ñu yëpp ay ndaw lañ ay jeune lañ tey daal waaw ñu ngi si waañ bi daal. togg boo xalaat dañ ko fi togg fi at mu jot. ay ceebu jën yu mag ceebu yàpp ay too togg awsa tey dara manqué wu macha yaa ngi fi ganaar yaa ngi fi ñu ngi togg ay ceebu jën di togg ay mbaxale yàpp di togg la dara jeexu fi. ay jën ay gis nañ fi ay jën ay sëddaa ngi fi coosa ngi fi yaaxa ngi fi lu ne ngi fi. ñu ngi togg dara dara dara jeexu bi lépp ñu nii bu neexee yàlla. ñu koy togg rek jox ko jaamu yàlla yi ñu lekk ñax tey ndax bis bi. añ bi nii daal di préparé benn. rek ndax moom na nit ñi lekk ba suur rek macha allah nañ bernde nit ñi ba ñu kontaan rek. képp gan gi fi ñëw rek lekk ba suur naan ba mandi loolu lañ bëgg berndeel gan yi rek. bernde bokk tamit ci particularité gàmmu loolee li ko tax a jóg du lenn lu dul képp ku fi ñëw daal di bég. ma ngoog ci li wax nag lu jëm ci wàllu yi nga xamante ni moo di gàmmu gi dafa nekk ci dayoo bu nga xamante ni ñu ngi wax ci lu jëm ci wàllu mbas mi di Covid 19 tolluwaay boobe noonu nag ci réew mi donte ñu ngi naan nag am na ca deltu ginnaaw gu ca waar wu am waaye teewul kilifa yi ñoom joxante ak sàmmonteeg tegtalu docteur nan la ko ñi nga xamante ni ñoo di taalibe yi dégloo ndigal loole ñu fa seeni ci ànd rek soxna ko ndogi mu di loo xamante ni nii obligation la ngir ñu takk seeni ay masque loole nag nekk ci bépp bërëb wala sax laata nga dugg ci jumaa ji mu di loo xamante ne ni fokk ñu def ko ngir dakkal jàngoro ji di Covid 19. waa zone Faydu ay taaliba Baay Ñas lañ lañ bëgg doon di ñëw fii pour xidma liggéeyal Cheikh Ibrahim parce que gis nañ ne loolu rek moom moo mën a jëriñ di jàppale xalifa bi ci lim ci bëgg parce que xam nañ ne tey gàmm bi tombee na ak feebar boo xam ne tasaare na àdduna dañu ñëw fii gàmmu si waaye dañu ñëw liggéeyal Cheikh Ibrahim xitmaal Baye Niass parce que loolu rek moo am solo ñun nag waa Jumay Faydu lañ ay ndaw yoo xam ne lañu bëgg nañ Baye rek di jaayante suñu àdduna ak suñu àllaaxira lépp ngir liggéeyal Cheikh Ibrahim xalifa bi nag comme loolu la bëgg nee nañ buñ ñëwee nañ takk suñ masque yi nañ respecté mesures barrières yi di laal alcool yi gis nga comme ni ko suma xarit yi di defee nii noonu rek lañ fi nekkee gis parce que nit moom amul lu dul boppam bu boo wéerul doo mën a def yenn nii faw ñu jàppalante rek loolu kese la. la jógee moom moo ñu jox ndigal bi nañ ko ku waay di dugg ak waa ji génn da nga takk masque ndax dañ ne corona dafa bëri ci dëkk bi euh, incha allah dañoo bëgg muy gaaw ngay jógee ndax ndax boo xoolee ku wóoroo bi sonaloon nañu trop trop mais pour l'instant dajaloo bi lañ ne dañ doon bañ ne dañoo bëgg gaa yëpp takk masque moo tax ñu koy def nii. ren ji mawlud bi ñu daal di koy màggal ci contexte bu particulier mu di Covid 19 fii ci bërëb bu sell bi bépp digal boo xamante ne nii rek xalif bi daal na koy amal ñu ngi koy respecté ngir dakkal jàngoro ji di coronavirus. jërëjëf soxna Koumba Gisee wàllu bi nga xamante ni nag moom moo ñeel ba tey wàllug wér-gu-yaram bokk na ca ñi nga xamante ni tey jii di transe lan moom mooy seen taxawaay ci wàllu wi nga xamante ni ñeel li nga xamante moom moo di taalibe yi ak seen teewaay fii nga xamante ni tey moom moo di Medina Baye ñoom ñooñu noonu nag ñëw nañu ba fexe am ca lu bari loo xamante ni taxawee nañ ko ci këru diine yi ñu ànd ceeg Chérif Thiam taalibe yi jóge ko fu nekk la ñu seetlu ci biir Medina Baye ngir waajal gane àdduna gi ñu màggal fii ci Medina Baye kii di sangu-sangu yi di yoon ci al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci noonu Transvi mi nga xam ne ab mutuelle de santé la bi xalaate ne leen moom kat def na la mu daan def ci Medina Baye ñetti at yi ñu génn euh, ñu ngi ñëw Medina Baye tey Euh, di ziar si en tant que euh, wëllëre xarit euh, ci ci kër gi it en tant que chef d'entreprise ndax niñ koy sasoo di def ci veyu événement yi ñëw indi suñu ziar sàkku ñaan indi suñu contribution as néew ci réussite événement bi di bu mag bi ci ci yoonu jullit di màggal bésu gane àdduna Euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ay doomu adama yu bëri yoo xam ne seen doole nag bëriwul lii di trans yi dimbalan leen ngir ñu càmbat seen wàllu wér-gu-yaram ah, ci lu ñu fañul dara fii ci Medina Baye remercier encore une fois l'excellence à Transvi ci li nga xamante ni ñëw def nañ ko muy couvrir ñëw euh, jàppale ñu ci gàmm gi ci couverture di ñu defal euh, Euh, consultation gratuite ak euh, ñi nga xamante ni ñooy euh, ñu ñëw ci gàmm gi bàyyeekoo ci dëkk bu nekk ñëw gàmmu ci fii nii waaye itam bi ñëwee bénéficié wu ci li nga xamante ni moom la leen trans bi mu nekk ay consultation gratuite yoo xam ne dañ fiy joxe ay médicaments di transvige moom dafa diggee woon na dina enrôler lu tollook ñetti téeméer ci ay talibé ci biir Medina Baye dugal leen ci couverture maladie universelle lu ñu mel la def ko firndeel mu di Cheikh Adi Ibrahima Niass sart yi ma leen ñu wan nii digga bor la ñoo fi ñëwoon ci ay mois passé ne dañoo bëgg pare na ay xale pare parrainage yooyu nag amoon ñu joxe woon seen alal na pare na ay xale lu toll ak daanaka huit cent waaye lu gën a goon ci cash muy tolloog ci presque trois cent trois cent quatre yooyu yëpp génn fa tey macha allah madame Diouf indi na ko mm-hmm. dinañ ko jébbal xalifa bi mm-hmm. ñu seet naka lañ koy séddalee ci daara yëpp ba kenn ku nekk gis si boppam te lu ma ci gën a neex mooy cent pour cent la mm-hmm. ni ñu ko waxee woon noonu la ñu ko bind ci carte yi foo dem ci hôpital yi wala ci poste de santé yi wala ci clinique yi di nga faju te doo fay dara di nga dem ci pharmacie yi nga jënd garab te doo fay dara ban bravo transvi li ngeen digg woon def ngeen ko ñu lay ñaanal yàlla lépp lu ngeen mën ren yàlla ngeen mën déwén ko foofu. directeur général bu transvi bi nag moom insisté bu baax suñu tàkk masque yi ngir fexe ba doomu jàngoro bi nga xam ne moo di mbas mi lëm bi àdduna bi bu mun tasaaroowaat ci suñu biir réew. noonu mbokk yi Medina Baye ba tey di fàttali kon jamono bi nga xamante ni ñu ngi àttu ngeen di teewlu jot na ci waxtu wi nga xamante ni la ñuy teralee tey taatagal ki nga xamante ni mooy suñu gan mu doon nag koo xamante ni mi ngi koy wuyoo Cheikh Ahmed Dame Niass doon koo xamante ni doom la ci papa Cheikh ku ko wax di Cheikh Ahmed Tidiane Niass mi nga xamante ni moo fi ñu woon xalif Baye te nag génnaat na yàggul dara yàlla suñu borom yokk leeram te taaf ñu ci barkeem sëriñ bi di sët ci Cheikh al ñu ngi lay nuyu. micro bi وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عليه وعلى اله حق قدر المقدار العظيم ورضا الله تعالى عن شيخي وحبيبي شيخ الاسلام ñu ngi leen di fay di nuyu mbooleem ñu leen di seetaan ci àddina bi yëpp di leen ndokkeel ci bés bi di bés boo xam ne bés ak juddóog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci ndokkeel Cheikh Ibrahim moom mi ndokkeel boppam waxoon na xani an ibrahima laaqa hilaaluhu hilaalun bada li naadirina jamaaluhu ndokkeel itam képp kuy nit ndax itam yonent bi dañ ko yónni pour mu ñaal képp kuy nit muy ginne wala kuy mindeef rek yonent bi mission am dañ ko yónni pour ci yow. Mhm. waaw am na solo cër bi nga xamante ni cërale nga ñu ko jox nga ñu ko tey ni nga teew ci suñu plateau laaj bu njëkk bi doon samp di juddu yonent alayhi salaatu wa salaam ñu bëggoon a xam tey Baye sa maam fan la tegoon sang bu tedd bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw Cheikh Ibrahim moom duut ne moo fi njëkk a gàmmu waaye li ko yàlla may mooy may na ko ci loo xam ne ko cofeel gi moom dafay dem ba mu yàgg sax mu mel ni kuy xaabaabal ci wenn waxtu du xaabaabal lu ko yàlla may la muy mu dëgg ci digganteem ak yonent bi naan wa man raama darti fi ishtiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustaxaalan muharrama képp ku ne di ma jot ci kursu bi may def ak bëgg ci yonent bi képp ku ne da nga ma jot ci kursu boobu da ngay nax sa may na ma ci cofeel ci yonent bi loo xam ne kenn dootul ma dabati te looloo war a sax taalibeem ba Cheikh Hamdul Mishri ca gànnaar moom it muy toppandoor Baay cofeel gum ci Cheikh Ibrahim moom it moom na wa man rama daki fi siyaaqi nabiyina wala xalilina faqad rama amran mustahalan lana dégg nga moom itam di iqtibaas ci waxi baay ji kon Cheikh Ibrahim cofeel gu ko yàlla may ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu cofeel goo xam ne gu wér cofeel gu ànd ak topp cofeel cofeel goo xam ne ne nag bi mu bëggee yonent bi la koy soofee nag mooy boo bëggee nit ki da ngay fexe ba toppandoor ko mu toppandoor yonent bi ci wax toppandoor yonent bi ci jëf topp ko ci dégg ndigal yi yàlla wax toppandoor ko itam ci bàyyi tere yi nga xam ne yàlla dégg nga wax na ne képp bu kenn jegee yooyu manhiyaat Cheikh Ibrahim kon cofeel googu am ci yonent bi moo tax moom bu toogee manifesté ko wane ko ci mboolem fu mu toog wane ne yonent bi rek la sofoo sama wajur Cheikh Ahmad Tijaan Ibrahim Ñas daf may nettali mu ne ma waaye dafa toog benn jamono wa waddaatuhu wa damu yajri sababatan ala xiini la yujdi bukaau lfata jadwa sama wajur Cheikh Ahmad Tijaan Ibrahim mu ne ma dafa am benn jamono da ngay déglu Ustaz Ibrahima Mahmoud Diop muy wane ne bàyyi mu son nañu ànd ak moom ci benn umra bi mu toogee ba taxaw ci kanam yenent bi mu ne bàyyi dafa daanu xëm sama bàyyi dama nettali ne ma dama àndoon ak moom ci voyage boobu te nag mu demee mu ne ma bi ñu demee ba toog ci kana mu a sama baay ne ma man ak moom la woon ak ki nga xam ne moom mooy ki représenté woon benn yemeni la a baay la mu a ma biñ demee jugee ci bi ñëw ci kanami darix yonent bi sallallahu alayhi baay ne ma a ak sama baay ak yemeni bi muy naarab yemeni boo xam ne taaliba baay la mu a baay bi mu taxawee ci kanami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Baye dafa taxaw commencé ziyaara daanu bi mu daanoo rek tarxiis mel ni kuñ padd mu daanu rek commencé xam sama bàyyi ne bi ma xoolee bàyyi xam ci suma kanam ma am choc xaw ma nan laay def ma gaaw dem taxawee ne le mu ne fekk boobu am na ñaari policiers yoo xam ne autorité saoudia dañ koy jox bàyyi pour ñoom ñooy nekk sécurité am ñoo koy garde corps am mu ne sama bàyyi ne ma taxaw ne le sama bàyyi mu ne mu ne ma bàyyi nga xam ñu toog ba mu yàgg mu ne ma yémani bi muy taaliba baay bi moo ñëw ci moom na ko Cheikh Tidiane ma ne ko mu ne ma ni ñuy def pour a yëkkati sa baay pour sauver ko dañuy fexe ba ñaari policiers yi dañuy ñëw jël ñaari tànkam yi yémani bi ñëw ci gannaaw baay crochet ak ndiggam li ak ndigg baay bi dugal ñaari loxoom yi ñaari policier kenn ku ci nekk jël benn tànk ci tànki baay ñu xenu ko yóbbu ko ca daalukaayam ba sama baay ni ma biñ ñëwee yëkkati baay mu ne ma baay di jooy ñandaxit yi yaram bi yëpp ndeysaan muy ñandaxit yi di génne sama baay ne ma ñu crochet yemeen bi ñëw ci gannaaw baay crochet ndiggam ak ndigg baay dugal loxoom yi ñaari policier kenn ku ci nekk jël benn tànk yëkkati ko yóbbu ko daalukaayam kon kooku la mu wane mooy ne ba mu taxawee ca kanami soppem amul sa benn énergie lépp ma daanu euh, moom la lay wax naan wa wa daatuhu wa dam wa dam wa yajri sababatan ala xiini laa yujibu kaa ul fata dama ala xiini laa yujibu kaa ul fata jadwa kon cofeel bu yéeme la wane ci yonent bi waaye bi mu ko soppee itam roy na ko bu cofeel goo xam ne rek dafay topp rek maanaam di dafay acte déedéet daf ko bëgg ba pare nag topp ko di ko roy ba léeg-léeg nga toog sax dégg mu naan la ida saara xayru naasi surtout waraahu bu yonent bi yëkkatee ma yëkkati bu tegee ma teg xam nga lu lay xàng su fekkee ne yaa yaa ngi toppandoor yaa ngi dox ci gannaaw kenn su yëkkatee nga teg xam nga xand soog moom su yëkkatee nga teg mu teg nga yëkkati yo doxatu leen waaye bàyyi na bu yëkkati yonent bi yëkkatee tànkam ma yëkkati su tegee ma teg te loolu boo doon dox ci gannaaw nit da ngay dem ba mu yàgg sax seen doxin ji day dem ba mu niroo mm-hmm. am na solo ci wax boobu noonu waaye tey def nga lu demee ni bitim réew am na yàgg nga fa xam nga fa te bàyyi ku ko xam xam ni ci wàllu dimension yamul rek ci Sénégal daana wax ni Sénégal la juddoo fi la yaroo Kaolack la gën a bëgg rawatina Médina gi mu nekk waaye bitim réew bu ñuy xayma tey nat dimension bi nga xamante ni bàyyi nekkee na ko ak faydu bi foofu comme yàgg nga fa lan nga ci mën a wax bon international baay gi moom du dara lu dul rek moom international la goo xam ne mu ngi ko jëlee ci l'islam ndax l'islam mooy diina gi nga xam ne yonent bi yónni woon ko rek ci umul ca qur ahlu qura ca umul qura ca Makka dañ ko yónni kaafatan rahmatan lil alamina baay bu ñëwee sax danga koy dégg mu naan la fa inni rahmaniyatullahi lil muhibbi di toppandoor yonent bi wane ne moom itam mission am mission am mission internationale la bi mu jógee keroog bi mu njëkk a départ di jël vol international mooy bi muy dem Nigéria 1947 keroog la njëkk a génn génnoon na 37 mooy ba mu ajijee bi mu retourné nag di doxal mission yonent bi 1947 ndax boobu colonial dañ koo xawoon a dañ koo limité suñu mi Koosi la woon ak Tivi ak Medina ak Taïba ñett lañ ko waxoon booy def déplacement Koosi Taïba Medina da ngay jàngale ji fii nga jàngale pour mën a yóbbul yonent bi sallallahu alayhi wa mission am bi ci international te loolu 1947 la mu dem Nigéria bi mu demee Nigéria Nigéria moo nekkoon déplacement bu njëkk léegi waaye damay dégg sax léeg ay audio ngay dégg ko naan la Cheikh Ibrahim dama jaaxle di wax moromam naan ko Cheikh Ibrahima Niass naka la def ndax daf leen di seetaan seen plateau yi jamono yi muy wax a xaritam ci audio naan ko Cheikh Ibrahim naka la mën a def ba ñag yi mu mën leen a lijjanti lijjanti na ay ñag ndax mu ne ko ñag yi bopp ma ne ko déedéet lijjantiwut benn ñag ndaxte nit kenn du ko mën a jël ak ay noppam mhm. bàyyi dafa dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ndigal am gannaaw bi mu jàngee ba am xam-xam mhm. am isnu xaas te mooy wadaayan ila allahi bi isni wa siraajan munira fu mu jublu yonent bi jublu fa fu jublu cheikh jublu fa mu cheikhul xatmi waral ba mu demee Nigéria buur ba moo njëkk a toog ak ñëpp ñuy autorité nigérien yëpp ñëw itam fu dem ci bi ci ñag ñu dut ñag ñi arab yeeg ñëpp nangul ko lu tax mooy moom nangul na yàlla ndaxte man aslaha ma baynahu wa bayna allahi aslaha allah loolay secret baay waaye baay dafa dem lijjanti ma ne ko adde ay ñàkk kenn leen lijjanti ndax boo leen lijjantee bu subaa itam ñoom ay nopp lañ yor na mes bala fa kon ay nit kenn ko lijjanti ñaareel ba mbir baay du ak mouvement du parti amoon na jamono sax Abdul Karim Niazi na ko woon ca 1972 ne ko dégg nañ ne yow yaa ngi yor fanweeri millions taalibe ci kaw suuf naka la mënee xam mm-hmm. bàyyi na ko la aalamu adadahum xaw ma seen i lim sumay taalibe wala yahummuni loolu hitteelu mas compté mm-hmm. lestu mu assis xisb wala zaimu taif duuma fondateur parti duuma ko taxawal ab mouvement di calculer membre yi mm-hmm. man li may hitteel mooy an yahdillahu fardan aw afradan li may hitteel ci l'islam gi mooy kenn nu dugg ci l'islam gi loolu ma hitteel mu ne ko an ma fanweeri million la te boobu daanaka ëpp nañ léegi boo ñëwee damay wax tout le temps suñu ne léegi Euh, mun tariqa wi deux cent million lañ boo ci génnee mbooloog baay gi doo desee dara mhm. te loolu yëpp li ko ko may mooy donnu gum donnu donnu gim donnu yenentu bi ci wiraasa mutlaqa donnu ko cheikh topp yenentu bi topp cheikh kenn mosu koo gis mu teggi tànkam fa yàlla wax kenn mosu koo gis mu teggi tànkam fa sunna nekkoon sunni nekkoon mutamassik bil kitaabi wa sunnati loolooy sekkereem mu nekkoon nag ku soppoon yonent bi mhm. loolooy sekkereem international gi nag bi mu demee àddina bi yëpp ñëwul foo ñëwee ku ne ku ne ci àddina bi waaye duut langue gum déggoon ndax moom déggutoon lu dul olof ak lenn ci arab ak arab ñaar yooyu waaye léeg nga dégg koo xam ne dégg na douze langue mën naa dem ba dégg France wax ak ay du leen mën a du leen mën a du leen mën a dégg kon bàyyi secret mooy coppeel gum am ci yonantu bi topp gim topp yàlla déggal gim déggal yàlla topp gim topp Cheikhu Tijaani loolay secret waaye duut ay langue ndax moom déggutoon lu dul olof te moom la doon wax ak ñëpp bu demee bitim réew wax ak nit ñi arab waaye ci arab yam doon wax arab yu ànd ak sell ak sellal bu waxee ci arab ba ci bàyyi may sax dañ doon ommatu jëm si ci moom. waaw tey jii nii tolluwaay boobu nga xam ne cheikh al bàyyi Baye amoon na ko tey jii nii nga di sëtam l'islam ku ko wax wax yonent bi alayhi salaatu wa sallam gis nañu jamono fi mu toll ak yenn ci yi nga xamante ni xotti wor may diine la xotti wor may l'islam lan nga ci mën a wax tey jii nii. waaw liñ ci mën a wax mooy Cheikh Ibrahim dafa am benn jamono jamono colonial amoon na jamono ñu amoon ñu ñu préparé ndax itam comme yeneen ci média bi colonial français defee li mu war a def pour mën a déstabiliser yëf yi Cheikh Ibrahima mu të mhm. defoon nañ ko Cheikh defoon nañ ko a bi defoon nañ ko yonent bi ci soobu bani bani bani bani Hachim mhm. mooy yañ bindoon dugal ko ca Kaaba ga na dañ leen di kooku jaari espèce yi mhm. dégg nga xeex la ci wàllu média defoon nañ ko Cheikhu Tidiane ñu ñëwoon Cheikh defoon ko Cheikh Ibrahim jëloon ñu mel am xam ne ko santoon Ndaw ak koo xam ne ku santoon Sow jarul média ci seen i tur joxoon leen am na koo xam ne sax ki sant Ndaw mosoon na bind benn article boo xam ne bu day waar wax ci Baye wax ju ñaaw lu ne mhm. waaw waaye terewul yooyu biñ demee ba ci mujj gi colonial gis ne comme la ñuy def français yi ñu gis ne comme doomi réewam ku ñuul na ni moom xeex bi mënu koo daan xaaral ñu jël ñun tubaab yi ñu sox jël seen benn écrivain bu mag ca France mu daan bind ci benn journal wax ay waxam yu ñaaw ci baay te moom Baye bi mu demee 1958 ci melal xal bu xubbal hachimi yi falam aj bi mu yegee Paris mu am ay ñëw di ko nuyu mu am ay journaliste yu ñëw di def ak moom interview waaye nag comme ci français magazine ñu doon bind at yee passé kooku daan bind fexe na ba xam kan la ak turam waaye mosu koo gis nag mhm. bi waa ji ñëwee yegg ci néeg ci bàyyi daal bàyyi nag tubaab bi wax ak kii wax laabso na ko waxal diw mii na ko maa ngi doon liir li doon bind ci man ci hadi yëpp waaye leen affaire laa bëgg a mu wax laa ko bëgg a wax mu ne ko lan mu ne ko moom mu ngi bind ci man tag mos xamut ma man Ibrahima Niass mosul maa gis dañ koo fay xaalis muy bind ci man mosul maa jox mosul maa gis tubaab bi na waaw mosuma laa gis bàyyi nag ko am nga bic mu ne ko waaw mu ne ko am nga këyit mu ne ko waaw mu ne ko man itam Ibrahima am naa këyit am naa bic ni nga toogee sa réew di bind ci man te mosuma gis ma nit mën naa toog bind ko ci yow mhm. ko def ndax damaa mandu su ma mandu te mayut may wax yow mu ne ko na xam na xaw ma la mhm. yow xamoo ma pourquoi nga toog sa réew di bind di ma ngañ di wax ci man loo xam ne yow mosoo maa gis te nga may soog a gis mhm. man bu fekkee ne këyit la man it am naa këyit yaw su fekkee ne big la am naa big waaye mu ne ko man du ma toog di bind ci yow wala may wax ci nax ndax man xaw ma la yenentu bi nag boo ñëwee li ñuy wax ak jamono ji boo demee benn benn homme d'état muy président de la République boo xam ne muy Emmanuel Macron masalan dafa am problème ci wéer yee ca gannaaw moom ak euh, Recep Tayyip Erdogan mhm. Recep Tayyip Erdogan Emmanuel dafa génn ca deux mois ca gannaaw def benn espèce ci dégg nga déclaration bu mu def ci dawlal Osmaniya ci l'empire mhm. dawlal Osmaniya bi lawlal usmaaniya bi bi mu ci waxee te moom yaa ngi wax ci loo xam ne xamuloo ko léegi Rajab Tayyip Erdogan di président bi nga xam ne seul président nag bu toog arabe yi bu ñu fa amee ay président ay am fi ay buur ñoom ñëpp jël nañ seen i làmmiñ yi instant yi dugal seen i war nañ seen i làmmiñ mm-hmm. Rajab Tayyip Erdogan bu taxawee ci kanam imam Emmanuel ne ko li ngay wax ci dawlal usmaaniya xamuloo ko su ma réew la su may xeet lañ fexeel ba toppatoo sa république xamal sa république yow xamal sa république ñëw di jox may taarix loolu la ko wax Emmanuel Maire ne ko kon xam naa ne xaaral ma def benn espèce maanaam jéemam dégg nga tëb dem ci yonent mhm. bi ci mu jàllee dem Charles Hebdo joxe ordre pour nañu jéem a fexe ba saboteel yonent bi nag jàpp na ne Emmanuel jàpp na ne mi ngi jëflanteeg euh, ma ngay jëflanteeg ndeysaan Rajab Tayyip Erdogan xamul ne ma ngay laal laalaake la seen waajal wax muy Kouthia waaw waaye daal moom moo jël ñoom Charles Hebdo ñaareel ba itam comme julliñ ji ñoom itam gis nañ ne léegi-léegi boo demee comme que njëkk a def muy Tatiana Siskindi bu Soviet 1996 moo njëkk a defar lu mel ni maanaam lu mel ni masalan tubaab xuux bind na Mouhamed ñu ñëwaat hollandais yi def ko daan waaye def ko français yi ñoom it dinañ ci feelu ndax gis nañ ne point faible julli ak li leen di merloo suñu yonent bi kenn jàngalu ko def ko islam gi du dëgg duñ mer yonent bi war a xatib na naw fol moo ko jox affaire yi ndaxte moom pasteur la woon duñ mer waaye léegi lu leen di merloo mooy ñu dese na ko ñu ne kon gars yi ñu commencé gars yi dese leen mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag bu Emmanuel delloo financé wane ne gaaw leen ngeen def lii Charles Hebdo bind mu géré affaire bi mm-hmm. xam foog ne ma ngay jëflante ak Rajab jëflante wut ak Rajab Tayyip Erdogan l'islam lay laal mhm. waaye moom bu fekkee dafa am lu mu bëgg a bind dama koy wax na ko dafa am benn goos boo am na quinze ans la am nekkoon di jàng ci benn école goos bu xawoon a tëx amoon benn daam ku ko nekkoon prof mat booy bi mën mat booy boobu mën mat ndaw soosu mhm. professeur ca mat la waaw ndaw si ñu ne déet ndaw sangeer ñaari doomam yoo xam ne ñoom mag kooku mhm. goos boobu léegi bi mu nobanteeg ndaw soosu te ndaw see ko mag am 40 ans loolu bu bëggee ma jox ko taarix bi waaye moom nobanteeg ndaw si te ndaw saa ngi sëy yor ñaari doomam yu ko mag bi mu ko nobee ba yàqal ko sëyam 2006 mu jël su fekkee ne dafa bëgg caricature bu mu bind na jël moo ndawam soosu mu bind caricature. dëgg la macha allah dëgg kon laaj bu mujj rek mooy tegtal ci gàmm gi lan ngay tegtal taalibe yi laata ñoo tàggoo. waaw taalibe yi de moom gàmmu du tey la ñuy gàmmu gàmmu gi moom yàgg na fi. Mm-hmm. xam nañ li leen war. Cheikh Ibrahim bu ñu ñëwee ci gàmmu ne ko lii gàmmu ba mu yónnee suñu woy jural Alaaji Abdoulaye benn gàmmu Alaaji Abdoulaye génn dem xaw a jaaxle ndax première fois muy gàmmu bi mu retourné bàyyi oo ko mu ñëw mu ne ko Alaaji Abdoulaye mu ne ko fekk Alaaji Abdoulaye première fois muy gàmmu xamul lii gàmmu bàyyi oo ko mu ñëw mu ne ko mu bindal ko ci kayit ne ko mal mawlidu illa zikrullahi tataxallaluhu am daax gàmmu du dara lu tudd yàlla rek bu ànd ak tàgg yéen a tudd lépp lu rëy tax am léegi nag taalibe ñun ba ñu gàmmu mille huit cent daanaka lañ commencé di gàmmu ci kër gi fi mille neuf cent deux sëñ Hadj Malick kon gàmmu li leen war xam nañ ko gàmmu duhut nag euh, léeg du ay mush yi am na sama benn baay joo xam ne moom dafa daan def léeg-léegi benn magam daan def gàmmu di financé quarante cinq millions léeg-léegi mu rakkam ja benn bés ñëw na ko gis nga gàmmu xam nga lan la mu ne ak yonent bi nee na jeex na loolu rek. <laughs> kon sëriñ euh, Cheikh Ahmed euh, Dame ñu ngi lay sant di la gërëm. di la sant di la gërëm bu baax macha allah jërëjëf waaw ah, jërëjëf wax dëgg yàlla man de du may génn ndax jamono ji moom damaa ñuuxu cëb néeg waaw ndax dañu ne ma corona waaye gannaaw yow suma xarit Moussa jërëjëf ma ne yow moom boo ma génnee danaa génn jërëjëf waaw ndax ndax ku baax nga te wax dëgg yàlla moom daanaka Euh, ñooñu fegu ci benn place am na ñu may laaj ay plateau ci ay télé yi waaye dama leen wax ñu fekk ma ca kër ga waaye bi nga ma xooyee daal dama ne Moussa Sène moom kooku moom suñu waay la bu ñu xooyee ak ku mën a nekk moom danañu ko fekk ci ñu ngi di la wax ne la wax dëgg yàlla mhm. euh, di la ndokkeel ci bés bi mhm. di la wax ne la di ñaan yàlla yàlla may ñu fekk koy ati ati incha allah yal di Cheikh Ahmed Dame Niass di doom ci ki nga ni mooy Papa Cheikh mi nga xamante ni ñu ngi koy jooyte nopp noppeeguñu Papa Cheikh nag moom moo fi newoon ki nga xamante ni moo di woon xalifu ki nga xamante ni mooy Cheikh Al Ibrahima Baye Niass di Cheikh Ahmed Tidiane Niass bi nga xamante ni dëddu na àdduna yàggul dara kon doomam la di sët ci Baye moom la ñu dalaloon ci xibaaru marax gi mbokk yi ba tey programme bi nga xamante ni yéen a koy topp bu leen ko uute ndaxte xibaar yi nga xamante ni ci kàllaamay nasaraan suñu uutoo rek soxna su kon jonn dina ñëw teru ak li nga xamante ni moo di xibaaru ñeel wàllu gàmm gi di mawlut atum ñaari junni ak ñaar fukk waay yàlla mi borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm borom kun fayakun yàlla na ko yàlla xëpp ci ñëpp lépp fépp gàmm gu nangu te may ko ñëpp 2STV it taw feex xewal ca kaw ca kanam jaa ngeen jëfati